xaw ma filmé yaa gis ñoo ngi fii Dakar yaa gis embouteillage bi fii yëpp embouteillage la oto yi gis nga nit ñi di dox euh, lan moo ko waral nag mooy euh, suba li ñuy suba mooy feetu Pâques yi li ñuy wax Easter Friday suba la donc te ay at defuñu ko ndax corona bi fi nekkoon euh, ba tey mi ngi fi sax waaye dañ koo dafa am ay yolomal yu ñu def looloo tax nag ñëpp di dem di ñibbi ñi nga xam ñoo ngi doon biir Dakar di dem di ñibbi si banlieue bi ci demene ay Pikine ay ay Cambérène gis nga nit ñi ak euh, embouteillage bi du du du voix bi rek ci voix yépp la ndax même fi nga xam modi euh euh autoroute bi fofu sax it dafa am euh bu tara tara tara gis nga ñun nit dañuy dañu doon genn dañu mujjé wacc ci auto bu ñu gennon ngir dox ndax oto bi dafa yéex mënul bouger gis nga oto yi nii la ñuy taxawee waaw nii dafa demee Gambian Talents TV lépp la leen di won ak lépp luy xew yaa ngi gis beneen voie bi tamit embouteillage bi noonu lay demee ci beneen voie bi fépp donc nii la mel